waaw ah. nuyu naa la Balla Gaye 2 Tapha Tine ah. na yow est-ce que d'accord nga mu nekk trois rounds comme ah non ñoom ñaar dañu bëri woon trois rounds xaju ma xaju ma ñoom ñaar waaw kenn ko na waaw Tapha Tine du arrière waaw Balla Gaye du arrière amul round amul caatu yaraa ak Double Sané ñetti round lay am dañuy bëri ñetti yoon final bi ma lay laaj ndax Tapha Tine Balla loolu mun naa nekk. loolu loolu yi bokkuñu. catégorie yi bëre bokkul. waaw dimension bi bëre bokkul. xam-xam bokkul mënul nekk. mënul nekk Tapha Tine Balla Gaye boo ko doon jàngal di ko toj nan nga koy tojee. mais Tapha Tine Balla Gaye. xeex ñoom ñaar. il faut ñu dañuy xeex jàppante mu jeex tàkk. dañuy xeex jàppante dañuy xeex mu jeexee ci bëre dóoru mu daan dara amul jàppante bëre mu jeex. jàppante bëre mu jeex. tey nga andi Boy Jules. Boy Jules lan ngay wax si Boy Jules. waaw xanaa di ko wax rek dina xool ci ay nawleem. waaw. xale la boo xam ne bii daayam. waaw may ko mu yóotu mbër. te gis naa ci moom bëre boo xam ne teel a ñax ma nag bëre feeñ. dëgg la waaw leer na ko mën na bëre. waaw ba pare itam bëgg na ko. waaw parce que tournoi yi mu def. ak dernier combat bu ñu bëri fii loolu lay wan ne moom bu bëri rek la a def te jàpp naa ci kàttanu yàlla bu ak suulee di nga gis ne ñoom ñaar dañu bëre dañu bëre da moom ku mën a bëre xamee ne mën na bëre rek bu bëree ci yoon teg ko ci yoon dina daal léegi Tapha Tine Balla nga ne xeex day am par force danañu xeex waaw danañu bëre te ci moom day xeex Tapha Tine nag bu xaaree kor dana bëre waaw làmb ji mën naa gaaw a jeex. waaw mais bu a xëyee dañoo amal njaay joxal jóob. waaw loolu moom bëre bu neex la doon. waaw te naa ne day xeex xeex bu tar. waaw te bu boobaa rek làmb la làmb yoo xam ne ji. dëgg jàpp ne dana nekk làmb yoo xam ne mën naa lu mën a amul ci saison bi boo xam bi bu loolu amee. waaw saison bi combat bu bu ko dàq lu bari. wala lan nga gisee Balla Gaye 2 bi jóge France forme Balla Gaye gisee. ah Balla Gaye nag ah li ma a gis ci moom. mooy dafa mel ni Balla Gaye mu 2006 Balla Gaye moom ma gisoon 2006. waaw moom laa gisaat. waaw damaa dama ragal ne poids boobu yor. waaw xëy na moom lay jëlee wax wala nooy lay ko fi doole. mais bu fekkee ne nag indil na doole. waaw combat bu neex lay doon. mais yow Balla Gaye bu 2006 nga gis. moom laa gisaat. moom nga gisaat nii. moom laa gisaat moom Balla Gaye da bu suñu commune ci xam dafa. ana Ama mu ci jàmm. xam nga yow bu ñu tabaskee ba pare rek yaa aye fii. waaw non dama bëgg seen desi ci xar yi ñu desi ko ba ca combat ba xam ne bu ñu fa jógee ah. feet lay doon na ragal naa ne am combat ba ba ah. day war toog ba minuit ñu ko bëri garo garo bu combat minuit ah. ñu doon ndax xam naa jàpp naa ne Aziz ak Baye Ndiaye bi nga xam ne ñoo tëgg lamba ji surtout Baye Ndiaye di def ci combat bi loo xam ne yàpp naa bu ko bu paree ci bu paree ci ñoom Ama jëm ci ñoom Balla Gaye ñoom dañ fi def ci diggante bi loo xam ndax Euh, li nga xam ne lii mooy euh, empereur. ah jàpp naa ne le temps lay commencé. foofu lay commencé. ci lay commencé mais yow ragaloo Fass jamono yi seen mbooloo. non Gris 2 daan. waaw mais ki daanu barki démb nag. am na ko ci daanu barki Pape Ndoye daanu nag. waaw la demee. waaw waaw mais nag loolu la lamb la ñun dañoo bëgg Fass même nga xam ne. demoon nañu nañu ñëwaat mais Balla Gaye itam te demoon nañu ñëwaat loolu la lamb laaj dañu àndandoo nekk benn Pikine nekk benn Fass nekk benn Guédiawaye nekk benn ñëpp dañu dem jàmbale ñooñu. ma ne ndax amoo loo tiit ci Gris Bordeaux ma kenn lu may tiit sama mbër su ma doon tiit sax sama mbër du tiit amul tiitu gars yi mais amul amul stress stress du am stress ci lamb. kooku nag moom soo ko léegi Ama Baldé wër na à 100 pour cent. waaw dafa laa jàpp ne boo demee ba jëli ko. may naa nga dem jëli ko xool ko ne mu mel yow may naa la loolu yow rek laa ko may nag. jërëjëf merci.